بجلن وأهل القرآن بجلن ين leen waa saytu déglu leen waa ahlal quraan déglu leen yéen ñooñi al quraan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 يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلاً سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان محمودا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 مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن و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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الوداد وسقينا من الجرى آه فانتظر Amin. Yeah.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 di julli di sëlmal ci sangup sang yi muy ya Seydina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. mi nga xamne amul beren yonent buy wacc ginaaw mom mo tejj buntu yonent yi moko ndar kep di feñal sama kontan ci bis bi eh, kontante go xamne amna tambale way amul yamukay di ñaanal ki nga xamne mo moo sampoon ji ba yalla يلا يلا ويفر سوفتكو وادي نانا نيب رك نيغا خامني سيني دوم موكال نانيو نيغي لين دي نانا داخ كيب كو سا دوم موكال القران دينا رام سي سا فامي بابا جوروم نيار فوك رام سا فامي ياي جوروم نيار فوك كون لي رك جارنا راي سا بوب سي سا دوم موكال القران الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين الصادق الوعد الامين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولا ينبئك مثل خبير ginnaaw ba ma sante yàlla di julli ci sang-sang yi di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di delloo xéewal boobu yëpp suñu borom bi nga xam ne moo tax ñu daje fii ñun ñëpp Euh, xam nañ ni tey am na koo xam ne tànkam mënu koo tax mu ñëw fii waaye am na koo xam ne wéram taxul mu ñëw fii waaye am na koo xam ne coobare boppam taxul mu ñëw fii loolu yëpp nag di ko sante yàlla mi ñu may xel kàttan ak mën-mën ba ñu yegg si fii ginnaaw loolu di sant ñi nga xam ne ñoo waral bés bi muy ñi nga xam ne dañoo wattu téere bi nga xam ne mooy téere suñu borom bi di di alxuraanul karim Euh, njëkkee ci abdu Khadir Gueye ak soxna jaara seen jigéen ak ki nga xam ne moom mooy Alaaji ñan waaye mënumaa sant ñooñu te duma sant ñi nga xam ne mooy seen parent yi nga xam ne ñoo leen indi fii wóoluñu li may wax rek ne doom dafa sax ci xol jël ko joxe ko yombul te nag surtout ba nga koy joxe xamoo sax ña ngi koy jox lu mu doon lu dul kóolute kon loolu rek doy na sant ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla na yàlla mottali yéene bi nga xam ne moom la ñu bëggoon ci xale yi ak mbëbët yi waaye mënuñoo sant te duñu sant ki nga xam ne moom moo waral lii yëpp muy borom daara ji ki nga xam ne moo tax ñun ñëpp ñu taxaw fii sañ wax muy Seyda Zeynab Fall rahmatullahi alayha yàlla na ko yàlla yërëm te xale ko àjjana euh, lépp loo xam ne ñu ngi koy def fii rek yàlla xam na ni am nañ yaqin ne mi ngi koy fekk foofu noonu fi mu tëdd te ñu ngi te jàpp nañ ni lépp ñu fiy def rek ñaan doyu lu dul nit ki nga bàyyi fi dara parce que hadis bi dafa andi ne ñett rek moo tax mooy fekk nit ki ci bàmmeelam bi nga njëkk mooy nit ki bàyyi fi xam-xam boo xam ne nit ki mën na koo jariñoo wala mu bàyyi fi sarax boo xam ne tamit nit ki mën na koo xool di ko gis wala mu ciy teg bët wala mu ciy teg loxo ak leneen ak leneen waaye nag jël doom ju xam ne am doom ju sell goo xam ne da koy ñaanal suñ né doom ju sel bo xamné da koy ñaanal waxu ñi nga xamné moy dem jàkka ji di julli waye moy ki nga xamné dang ko julli dang ko dang ko jur ci faratas yalla ak sunnaas muhammad kon nak yoy yep yaakar nañ ni am nañ ko te ñu koy ñaanal ci yoy yep en tout cas ñoo wax lepp lepp lepp lepp lepp mais ñu ngi leen xamal ni na seen xel dal bu baaxa baax ci xalé yi nga xamné ñoo leen ñom lañu yar ci biir kër gi xalé yi ñun suñu objectif moy lan moy bép xalé bo xamné da nga nekk ci kër gi na nga am wër bo amé wër ba paré na nga am yar ba pare boole ceeg diine loolu nag yéen ci mën a dimbali ba xale yi bu ñu demee fête xam ne léegi ñu jël fête incha la le premier vendredi la ñuy jël fête xale yi bu ñu ñibbee kër yi ngir yàlla dimbali leen ci bañ génn bu bëri bi ba pare suivre leen ci toppatoo bi nga xam ne mooy jàng alxuraan bi sinon bu ñu ñëwaatee defaraat day defaraat dafay day gën a rek léegi nag objectif yi ñaar la mooy ñun ak yéen ñoo bokk li nga xam ne ñoo ko bokk mooy ñun dañ leen di yaral jox leen yéen ngeen continuer yar bi waaye buñ leen ñu yaree jox leen yéen ngeen bàyyi seen loxo rek ëlëk buñ ñëwaaté défarat bi day metti kon ñu japp ci bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax loolu mo nekkon kaddu yi nga xamné wax neexul sax té man mënuma wax parce que limay wax ci ay mbolo beuyul wax dëgg yalla waaye nak li mo nekkon lo xamné mënul ñak rek pour ñu wax ko aqulu qawli hadha wa astaghfirukum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Beglen wa ahlal Qur'an Beglen yen nyonyi al Qur'an Yen araw fi te yenarau fe